Hello. Eh, joxaat ko ba xool. wan wan wan ma li muy lekk. xoolal mi ngi xool fee. fee fee fee fee. xaar xaar. su ma ko sànniwul day naaw sama loxo bi. waaw noonu la laa bëgg mu naaw sa loxo bi. damay xosi. nga du la xosi. léegi xool la téye rek da mel lu koy téye. muus bi de bañ a lekk bañ a. te te teel teel bañ bu tëbee nag mu neex. wàcce wàcce sa loxo tuuti. wàccal wàccal wàccal wàccal wàccal wàccal booy booy teel de teel bu ko jox ko. ayca wàccal sa loxo booy tuuti rek tuuti rek tuuti tuuti tuuti booy wàccal wàccal bul ragal booy bul ragal.